oxoosi bi la bisimilah inna waliyala bi barakati Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan partout dans le monde ñu ngi leen nuyu baax te di leen jaar eh, ginnaaw loolu ñu ngi ñaanal bu baax Serigne Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi ba lépp loo xam ne bëgg na koo liggéey Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba suñu borom may ko mu def ko tànn ko taalibe yëpp di ñaanal baax Serigne Bassirou Anta Niang suñu borom yàggal ko fi xalifa Mame Thierno Birahim ba lépp loo xam ni bëgg na ko liggéeyal maam Thierno Birahim suñu borom may ko mu def ko ñu ngi ñaanal baax Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni suñu borom yàggal ko suñu karam ba lépp loo xam ne bëgg na ko liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba suñu borom may ko mu def ko te ànd ko taalibe yëpp mbokk yu ñu suivre ñi ngi fii ci Darou Mouhty ci kër Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni ki nga xam ne moo ñu fi woote tey di Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni woo fi ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Thierno Ibrahim waaye woo fi mbokki taaliba yëpp kon incha allah rabbi rek gis ngeen kilifa yi ñi ngi teew nii euh, ngir euh, nam taataan waxtaan wi nga xam ne moom la fi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nama nam ma def ànd koog mbokki taaliba yëpp mu mel ne itam euh, Serigne Gana Messere maxtaar jógee na Touba mi ngi fii ci Daaru Muxti te itam nar nañoo ànd ak moom ci li nga xam ne moo di jataay bi kon incha allah rabbi dañuy ànd rek ak kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci bis bi ñun namu leen dénk suñu micro am ñu ngi leen di jox dig daje euh, ci kanam incha allahu rabbi lépp lu fi am incha allah dañ leen ko dig digtal incha allahu rabbi kon ñu ngi leen di jaajëfal baax jërë ngeen jëf damay takkaat sama la xasaat maa di soldaaru bamba di nekk sab alkaati buy geeteeru tende duma dara donoon naa fi ab xaj bu sëriñ bamba bu daan mbawu mu soppi ma gayndeem gu daan ngaru turam man mi kara mu mën a may kar ndaw ñi tañooñal tañax tañax ba ñëw ci biir Bamba fépp ngir xam ni moo di dara jërëjëf Sëriñ Tuuba la gone yépp yi moo ma may ma siiwal ko ci ndaw ñi ndax moo di dara jàmm yàlla goog dara mënu ko yàq ndax imaamu akbar moo ni sax leen ci moo dara mbàkke tey fii la ba beneen yoon dégg ma ta nangul ma lii may ñaan doon te tekkiw dara awazani laahu min acheytaani waxaddali awtaan noo bëggoon bu nu nuyoo sant tout tànk yi ci seen yéene sant kilifa yii fi teew rekk bàyyee leen ak Cheikh Gànna bu leen bëggalee ci ko tedd ki ba noppi nag ngeen soog a waxante ci seen biir li leen tax a jóg ba tax ma nangul leen jataay bii taalif bii nga xam ne dama ko defoon ci Sëriñ Muntaqa ci bisu alxemes laa ko defoon bi Baye Abbas radiyallahu anhu wàccee liggéey itam ca àllarba ja ca guddi ca alxamis ja ca suba ba di tegale boba itam laa jataayoo ak sëriñ Muntaqa kon alxamis ji dellu siwaat nuy taatan ci leeru bishra yowmil xamiisi bégtem biso alxamis am na cant yoo xamante ni bii doon naa ko jàllalelu waaye ndem dama jël kàddu gi ci yëg-yëg bëgg koo jàllaleel sama bopp ba noppi bu ñu ma koy baamul ñu soog ma koo baamul ku ne xam na ni jullit day baaxoo wax xaaji cant yi ñeent ñeel na yàlla buur bi ci majalis ñiy jàngale mu mel ni ñun kon sunu cant dafay nekk ashukuru bila adadin nga xam ne du am mesure du am dayo mën naa tàmbali waaye du am yamukaay maanaam ashukuru bila nihaaya fu man di jaare dem ci borom ku tedd ki bu eggee ca moom alayhi salaatu wasalaam daf ciy jot gën gi mbindeef boroom asamaan ak suuf def ciy jot dama baaxoon ak mbooloo mu ma toog mu ma fekke bu ñuy waxtaan ci ku tedd ki ku yorub téere di ko jàng te ku tedd ki bind ko wax dëgg yàlla ku nekk ak na ngay yëge man jàpp naa ne mbindum ku tedd ki moom boo ci nekkee kenn wër ta wax ci li ma jàpp donte danga koy yelu itam ndax dafa féete kaw lépp lu ko waral naq lii min na lawhil mahfuuzi abada ne ne li muy bind ca lawhil mahfuuz la jóge ku ko yor ci mbooloo doonte danga koy yellu kenn wër ta wax loolu mooy sama philosophie te ngeen baal ma nag yéen ñu yor téere yi dafa wax dafa baax ci booy wax nga wax li nga gëm man maa gént doon naa ko nettali Cheikh na fii ci kër Serigne Modou Awa Balla ku tedd ki toog nii ci suuf ma toog ci wetam am ñeent ñu nekk ci kanamam am ci kuy jàng ku tedd ki ne ko bindew ma ko noonu ma defe ne danaan kemej mu continuer jàng man naaw bëgg a toj nopp bi far yeewu dëgg la gént la waaye te ngeen baal ma nit mënta wax lu mu gëmul moom moo ko wax na law allawhil mahfuzi abada boo ci nekkee danga nga ciy nekk ko la ci mën a nekk le nekk le ci ku ko mënul ni kemej mbaa mu jaar nii nga jaar nii loolu laa gëm xale yi dañoo wax ni dañuy taxawal ab kuréel boo xam ne jubluwuñ ci dara lu dul di ànd ak man ci sama yëngu ci ni may dunde ko tedd ki ma rafetlu ko ne leen nag waaye bu mënta ñàkk itam mask yi nga xamante ni bi dafa xew te kilifa ñépp di ci soññee ba suñu kilifa gii di ko def yàlla na fi yàgg te di sëriñ Basiru mi fii borom daaru tey moo tax man leen ko neen ko màndargaal bokk na ciy teggin ak bàyyi xel sa baatu kilifa donte ay républicain la ñu loolu kat a tax mask yi mel nii inamal ahmalu nag bi niyaati bu état génnee ab dogalam sa kilifa gi nga xam ne amoo lu dul moom di ca soññee nga gisal ko sa bopp wax dëgg yàlla war ngaa woon sa kilifa ni ko kat ku ko deful yitam ngir lompañ ngir lottu ca teewul am na yéen a jë looloo daal murid yëpp murid yëpp bu ñu sañoon lu sëñ Muntaxa joxañ ñu def ko loolu nag bu mu jaaxal kenn ku tedd ki ca mat la buy chifa yi dafa doon awakaab ñépp ñu gëm yàlla ñëpp fa innahum wen xasaw ko yaa ahad li xaflatin képp lam yushriku bika ahad doon awkaam ñépp moo tax rekk ñuy waxe nii dëgg la kuréel bi nga xamante ni bii ñoo am yéene ngir liggéey ci Daaru Muhti ñëw nañ fi démb waxtaan na ñoo man waaye fi ñu toll kenn daa mënta sori ci ay wax ndax barki démboo njaay la fi xalifa bi jóge kii ko fi wóotu gis ngeen ko kenn déggagu ko ci dara lii nu def nii sax na nga koy jégglu danoo xam ne rek sëriñ saaliwu moo ma waxoon ne ma lu baax am na loo xam ne kenn du ci laaj ndigal da ngay xam ne lii rafet na rek nga def ko lii kat a tax nde kenn kenn waru fee yëngal dara fekkee dëgg rek lañuy wax cant yi ma doon wax dama ciy ñëw donte dafa am fu ma koy jaarale ci ñu ma koy jaarale itam day jëm ca boroom waaw ndax sëriñ Muntaxa alxamis jooju ma leen di wax la ñu waxtaane la ma ca mën a nettali mooy na képp la ma doon wax waxuma leneen waaw am na nag sama waxi bopp juma ko wax man la concerné mu ne ma loolu moo munta nekk ma ne ko ma ne ko fa kacc kaccet du ma ko révélé la ñu waxtaane doonu lu ñuy nettali waaye loola man la concerné waaye ba ma ne loolu a nekk itam laa ko ca ni kaccet ñuy wax la leneen waaye Thierno képp la ma wax Thierno rek waaw ni ma Thierno lañ royloo mooy jox ba noppi nag jox ma ay mandarga ak i tegtal jox ma juróomi barkeelu yu bokkul ak valise ba ko def ma ñëw fii ci sama kilifa Serigne Moustapha Hafsa Modou Awa Balla di ko gaaral ni ko man de kon ndem deme ni nii moom maa ngi delloo si sama cant mu ne ma boo ma santee benn fukk laa lay sant mu amu déggiin sa kilifa ne la boo ma santee benn ma sant la fukk teew sa cant gi nga koy sant wërta am ab lim ma yóbbu ko ca man jaa abil hasanati fa curu am saaliha ndax ñoom mbirum yàlla la ñor te yàlla moo ni boo ma defalee benn ci wiw ma tegale ca juróom-ñeent muy fukk kon foofa la Serigne Moustapha waxe foofa nga koy déggee ma fay jógee mu yónnee ma aw nag ndax xam ni fii su ma fi nekkee njaboot gi di gën a yaatu te ma war koo jox cant yooyu nu ma ko ñàkk bañ a jàllale xalifa bii itam li ma wax dugal ko ci samay nopp moom tamit moo tax ma koy sant ndax jàpp naa ni lum mu baax baax baax baax am na kàddu yu rëy yoo xamante ni bii dugal ko ci sa noppi doom day diis ci moom waaye moo toll noonu ak ak mbaaxam ñu ko ciy sant waaye cant gi nga xam ni nag xaqiqatan fii baatinin ci diggante borom pàkk bii ak boroom kër gu mag gee di borom ñaari leer yi te ñoom ñu ko zo zonorini ak kee di ndaayaan te dëkkaloon ma daaru juuf ñoom ñetti weer yi weesu li ma leen di gis day bari kon faw ma seedeel raqib ak atid sama cant ci ñoom ndax gis naa seenu taxawaay ci man ci baatin ni ñu koy yokkee ni ñu koy renforcer maa ko xamal sama bopp di ko yëbal sama bopp bu ko defee nag di sant yii toog nga xamante ne bii ku ma ci tuddul sa ñëpp a ngi leen di gis ñëpp ngi leen di gis damaa defe woon dañuy nekk ci kaw maak ñoom rek bàyyi xale yi wax li ñuy wax ñun ñu ñaanal leen mbaa ma yebal ko moom sëñ Abdou Mbacke ngir mu ñaanal leen waaye ñu ni wàcc gi mënta ñàkk e, mu am nag loo xam ne dama koy ñaan bu ko defee man ma jiitu leen ci kaw e, alaaji ma faal jot li yi ma koy jot li loo bu ko defee Cheikh Gànne waxtaan ak yéen tuuti ndax am na ñoo xamante ni bi dañoo war a ñibbi Thiès am ñu war a ñibbi dakaar faaw ngeen bàyyi xel loolu te couvre feu bi vingt et la bu ko defee ngeen bàyyi xel loolu bu ko defee itam kuréel bi la ma ci waxoon Abdou Khoudous rek ak Maajee Johnson na doon kuréel boo xamante ni bii ngeen yaatal ko kuréel la boo xam ne pour ñëpp la ndem soutenir ma ngeen ci jublu ñëpp ay soppe lañu waaw bu leen bàyyi góor bu leen bàyyi jigéen bu leen bàyyi mag bu leen bàyyi ndaw bu leen bàyyi seen ku nekk ci réew mi ak ku nekk bitim réew kuréel la boo xamante ne bii na ngeen ko yaatal ñëpp bokk ci bu ko defee nag bis bu ñu taaj demee ba taxawal kuréel bu mag bee mag a mag a mag lépp sërxalu ci biir wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.